waaye gis nga Diop lan la yem yow Diop dër gi noonu. bul forcer ak soo songale na ko songale na ko daan na fuuf doole. la ilaha illallah. jërë ngeen jëf mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen ziaral di leen joxaat seen wàccuwaay bu wërëm tey dañ ñëw fii Kër Massar ci fi xale ndaanaan mu xew leen muy kan Hamza ñu gën ko xam ci 6600 giga xëy na nag su ma nee 6600 giga dina jaaxal ñu bëri waaye ñi yàgg dem ci àll bi xam nañ li 6600 giga waaye nag waa Kër Massar Hamza lañ xam waaw mu jëm nag le premier diggante xale bi nga xam ne dafa soxla sa combat bii nakaa jaral mu Hamza war fay jóg dañ koy bàyyi mu nuyoo rek Hamza ziar naa la nga la ko ak caméraman yi waaye di maa lay ziar bu baax a baax di ziar gars yi ma gars yi nekk fi ñëpp di leen bëgg di leen jox ñëpp ñu ñëw ñu teewul ñëpp maa di nuyu di leen sant di leen si ñëwul sant naa la ñu ñëw ñëpp sant naa leen waaw ñu gis Hamza xew la ñu gis ay Bib Diop Vedasia ak Bisale Kungkung Caka Faye Bass Sa Thiès ñëpp ñëwal la. waaw dafa jot Kër Massar léegi département la quoi xam nga ñun ñëpp a bokk ñëpp ñoo bokk lépp yaa may dégg tey ñu jàppee Malika Yëmbal Kër Massar c'est même bokk jaxaay ñëpp benn la am na du neex ba ñu bëri ñun ñëpp suñu biir yaa may dégg mais avant tout damay sant Vieux Dacia. yaa may dégg damay sant Vieux Dacia parce que gis naa yite bi muy jël si man. parce que imagine mbër bu mel ni yow jël otoom dina yóbbu chaque jour entraînement te doo sol gasoil doo def dara oto bu neex lay yóbbu entraînement dina yóbbu ñu ñëpp entraînement ku si mel ni Vieux Dacia maa ngay sant bu baax a baax a baax wasalaam mais Hamza nga jëm si bés mhm. sa diggante caatu ndakaaru ana saa lan moo ko dugal si caatu ndakaaru waa caatu ndakaaru lenn rek moo tax ma jël ko ñàkk adversaire waaw ah, mais moom du lamb sax te xam nga li ma lay wax man li may daj ci làmb kooku daaju ko si daju ko sax xaaj bi xaaj bi daju ko na yàlla daju ko te ma la nee benn jooy la benn jooy la billaay walaay benn jooy la ko maa moom du làmb gëmoo ne day taxaw ndax la soxla soxla ma moo ko bëgg moo ko bëgg waaw làmb a ko bëgg mais man du ma moom parce que ñu ma daan ñoo ñu ma daan ñoo gën a tàng ñu mu daan fan nga wékk loolu parce que dama ko dama fu ma ko wékk mooy lan man dama juddoo ale làmb parce que dafa nekk si man man depuis nekk xale ba léegi fi laa doon fooyee làmb da may xale ba léegi mais moom daa màgg nekk mbër mbër boo xam si koñ la nekkee rek ponkal gaay na kaay dugg si làmb te ko comédien la du mag moom sax waaw ah, làmb mbooloo nu waal non du comédien ndax mbër la comme yow nga lekk avance mu lekk sa avance li lay confirmé euh, maa mën le premier décembre ñëw na le premier dama koy géem ba géem waa de Grand Dakar da ko maa moom du moom maag bàyyoo mi la. dëggu ma. maag bàyyoo mi la. dama dégg sa biir wax nga ne comédien la est-ce que boo ko daanee lamb bu du ne no nga maanaam soo gisee sama gën koo jël maanaam dama bañ di année balance yu bëri yi nii parce que année balance jigul mbër te man mbër laa parce que man daam ñoo xamante man dama war a jàkkaarloo ak ñoom muy mbëri ma gi nekk si kaw. parce que man bokkuma ñuy bëri bëri ñu suuf parce que poids si poids war a bokk quoi ndax xale laa. waaye man li dama siy génn bu soobee parce que man yabuma sama waa gox waa Kër Saar yabuma leen. dama la laaj. mu la séq mu lu may wax moom. li premier avancé ah, premier. Ah. maa attaqué maay koñe maay duma maay daan bu soobee yàlla. Ah. billaahi maa ko mën lamb du ma ak moom sax xëy na nag mënu koo gëm parce que ni ngi signature muy jaay bi rek neex lamb ji du foofu lamb ji le premier la fu mu yaakaar gaal fu mu fu mu yaakaar lamb ji man fu ko raw laa paase foofu. moom si dooleem la ko yaakaar at mën a bëre ma fitam. kon bu dee doole maa ko doole. bu dee bëre maa ko bu bu dee xeex maa ko xeex lépp si lamb maa ko ëppale te lépp lu muy indi bu jour ba incha allah le premier da fa fekk ko balaa moo comprendre ba le deux jot balaa moo comprendre le deux jot incha allah. maa lay fay bu baax a baax. mais mais moo leen di oh. déglu mel ni ni wax mel ni waaw ah, man damaa yeex sama supporter bay génn saako man dëggoo ma maa ko dàq xeex xeex yi bokkuñu maa moom du làmb sax te ba nga xam ne yow ma sama supporter ba le premier nga xool maay attaqué maay koñe maay duma wala du gëmoo loolu yow. mais mais mais. ñu gis boobu a ngi tas tas. li nga man man maay lamb man la doom Kër Massar bi déggoo ma man lu ma wax su fekkee dama si nar a tegg baatu ginnaaw rek waaw ah, man doomu Kër Massar ñoo may rendi ndax fii ah, du ma ah, man du ma ragal benn avant tout man du ma ragal te man nitu kàddu laa lu ma wax dama koy def ama baat ginnaaw te jour laa ma jël incha allah lu ma wax yëpp incha allah dama koy jëfee. ndax kooku balaa nga xam. bala ngaa xam lépp dëgg la rek ba le premier jot incha allah te yal nañu yàlla wone ba le premier incha allah ba yéen ñëpp ngeen fekkoog si tal ak jàmm yaa may dégg boobaa ngi la dëgg ngeen di soog a comprendre kii xam sax ndax ngeen si ngeen di xamee maa moom du làmb maa lay bu baax a baax ñu ne bu baax mhm. parce que sama turandoo laa jël te nit ku la tuddee da ngay jël ma la borom jaasi bi parce que nit ku la tuddee rek da ngaa war mel ni moom boo mel ni moom rek da ngaa war baat ginnaaw

du ma si dolli tànk ginaaw te incha allah le premier ndax yabu ma sama waa sama waa gox muy Kër Massar le premier incha allah man maa leen ko tàmmal dem jëli ko te incha allah dama koy jëli bu soobee yàlla si kàddu suñu borom. li waaw xeex bi gis si yow sa combat mhm. lu ko raw mooy ñëw. bu ko raw lu ko raw lu ko lama ji ñaari ponkal la foog ni teg jaaga bi bu ñu tegee jaaga bi day neex ba amateur yëpp dañuy dañuy bëgg te lama ji dafa am lu ma jaral parce que lu ma wax léegi laay waxaat lama ji dafa am fu mu mën a yóbbu yaa may dégg mais caatu Ndakaar du coow lamb mënu bala maam moom wala bërëm wala capacité am wala saa caay lamb bu mu am ndax li mu am li ko raw laa am man mais avant tout damay sant sama waa sama waa gox. waaw waaw combat bi xam naa fu ma yóbbu ndax xale laa dama tarbiyu làmb da bu may xale ba léegi damay foowee làmb ah, làmb dafa jot Kamasaar di dégg ko fu raw dafa jot Kamasaar ñu dégg kom yeneen gox yi ñu dégg ay ñoom Balla Gaye ndax am na ay doomi Kamasaar yi nekk fii yu mën a bëre ki si mel ni Bassa Gaye Jogel saa bookal ay ndaanaan ndaanaan ñu ngi fi ñoo xamante comme ça lañ dëkk gis mel ñoom Tafa Xarañ Tibles Bàcci Njaay ñu bëri ñu ngi fi ñoo xamante ay champion leen te làmb da leen war a dëgg ay ñoom ginne bu ndaw ay ndaanaan yu bëri ñu ngi yeewoo Kër te làmb da leen war a xam ki su ni bébé ndaanaan yu bëri ñu ngi Kër Massar te làmb dafa jot Kër Massar dëgg ko ndax am yeneen gox yi am na Kër Massar lu ko raw mais leen laa leen di ñaan gi yàlla ak yénte bi nañ seen doomu gox non jàppale la ndax ñun li góor am li góor di ñun fi la buujoo ñun am nañ ay montagne am nañ ay salle manquéwuñu dara bëree bëree ñu ngi gën a di dem bëre ji bëree compétir ñu ngi compétir mais leen rek leen manqué mooy jàppale te nga la waaye waa Kër ñoo jàppale seen doom waa Kër Massar woo ñëpp amul frontière li nga jàppee ba Malika yëmbal benn baraag buun Malika Caaroy ña ñakorob jaxaay turam pël lagrose bàyyi ma fenn ndax la ñoo ñëpp si Kër Massar leen bokk léegi alaaji Paate Sotrac dégg nga ma ñëpp maa leen di woo si combat bi ñoo jàppale seen doom seen doom laa ne ñoo jàppale ma ma dem jëli lamb ji incha allah te am naa ay yaqin te liggéey naa lu war a jëli ndam incha allah te dama koy jëli bu soobee yàlla ne ñoo jàppale seen doom ku si mel ni Mounirou Ka yaa may dégg maa ngay woo si lamb ji bas deboo fer maa ngay woo si lamb ji ku si mel ni bas deboo fer maa ngay woo si combat bi per Aldo maa ngay woo mu ñëw si combat bi jàpp si Kéba Kandé waaw dig bor la quoi te nuñ ko ma rek dafa jot yoole ji te instant leen rek la ñuy ñaan ku ñu jëndal bolog ku si mel ni Bilal Diatta ah, maa ngay woo si làmb ji waa IS Sport maa leen di sant bu baax dem ñoo ma jox tiset bii nii mayo bii nii mu ñoon ma ko jox waa non comme waaw yow kolo ben waaw da nga commandé <laughs> suñu mel waa Balia maa leen di woo yaa may dégg lool loolu noonu si loxo Iliman laa ko teg Iliman Joola waaw dama koy yaatal Baye Baali yëpp Kuluxum ñu ñëw le premier incha allah waa terminus maa waa terminus seen doom laa comme ni comme ni seen bëri nekkoon foofu man seen doom laa jul làmb ji dama bëgg ñu ñëw almaami baax ma kenn waa terminus maa leen di woo ñoom ñëpp si làmb ji ñu ñëw incha si kaso bi maa leen ñaan yàlla jàppale ni génn fu nekk ndax samay nit leen damay ñaan yàlla suñu borom yal na leen yàlla génnee fu nekk si barke Seydina Mohamed du ma tudd tur du ma tudd ñaan yàlla suñu borom mu génne leen fu nekk ndax samay booy kese ñoo nekk si foofu te ñaan naa yàlla incha allah dëgg la jomul kenn mais maa ngi ñaan yàlla yàlla nañu yàlla génne fu nekk yaa may dégg maa sant sama waa gox maa ngi santaa sama waa gox avant tout dama koy jëkkee sama waajur bu jigéen da su ma demee ba mun lépp ngir jëmoom la ko aw aw ma fayam dama koy sant bu baax a baax baax jigéen bu mën góor la su may su ma koy su ma koy su ma koy su ma koy sant sax waaw mun amaana mun naa tur xew ndax fu mu féetee si la juste ñaa maa ngi dégg ngay tudd sama turu yaay le premier ni ma yeb ba di tudd sama turu yaay si télé bi premier dimanche incha allah dama la ñaan gi yàlla balaa abi dina prix sama tur diggante ak yow rek boo bëggee moo leen man man gaynde laa wala du ma gaynde nga tudd sama tur yaa nga xam ni man gaynde laa wala du ma gaynde maa ngi sant samay gënaa ñu fi nekk ñëpp Ala Ndiaye maa ngay sant Ousmane maa ngay sant Ba Ndiaga maa ngay sant Abdal Aaj boo yëpp maa ngi sant ba am na combat nag le 11 le 11 janvier sama doomu ndey sama seex am na combat te bëgg naa waa Gëmësaar ñëpp génn ñu dooleel ko doomu Gëmësaar la incha allah bëgg naa ñëpp ñu jàppale ko soutenir ko incha allah mën a jëli ndam li te incha allah damay jël premier ndam dama koy jël premier avant tout damay sant sama géwél Landeera lan dara non géwél gi du maag moom du maag moom ndax am tax moo ko sama yaay la woon jamonoy bool politique moo sama yaay ñoo doon politique tey doomu màgg ba nekk si làmb ñu bëri ñoo ma doon tëgal waaw sama yaay dama ne kii jàppal ma ko billaahi wallaahi li ma la wax sama yaay ma ko wax dama ne jàppal ma landeera maa moom du tey dem depuis moom ak sama moom papam la woon tey tey mu nekk ak moom mii mu nekk sama yaay tey moom mii moom mii mu nekk sama géwél tey di ma tëggal te dama koy sant di ko gërëm aw ma na nit bu baax la barki Seydina Mohamed ak gars yi ñu àndal ñëpp ku su aada gars yi yëpp maa leen di sant di leen gërëm aw wax nii ngi yàlla bu ma ko dagal dama bëgg nga booleel ma ko si incha allah ndax aw ma fayam parce que li mu def yemul yàlla xam ne sama combat bi passé billaay wallaay fayu dara fayu ma ko dara barki Seydina Mohamed sama combat la ma yóbbu yaa may dégg sama combat yi passé sama combat yi passé moom ma yóbbu woon barki Seydina Mohamed fayu ma ko dara kon du ma gën a gore te incha allah dama koy ñaanal lenn na ma ñaana ba mu nekk roi des arènes te bu soobaa yàlla kër laa koy fay billahi wallahi kër laa koy fay barki Seydina Mohamed te am naa yéene boobu am naa xol boobu te bu incha allah dina xam ne am naa yéene boobu su ma moom nu jaay mi ngi kii ma war a kii moom a njëkk a daan babat. yow yaa njëkk a daan xam nga. sa waay la. kii moom a njëkk a daan babat. Ah, waaw su bëree nii rek nii nii jàngal ko bëree mooy loolu noonu. bilaay moom a jàngal bëree moo nekkoon sunu magu groupe. moo nekkoon sunu magu groupe. champion la woon. li ma la tontu woon yow yaa njëkk a daan xam nga. moom a njëkk a daan. daa booy nii nii xam nga rek. xam nga daa booy. Ah. boobu champion la woon dèjà. non xam nga rek maa ngi ci woon ci tërë ay yeneen mbokk yi. bilaay walaay. toujours aw sama dof yi sama dof baa ngi nii. dagala ko micro bi amul laajte. bor baa ngi nii amul laajte. wuy ma ku sikki saa eh, rek moom. avant tout Mame Diarra Diop wóor ma ma fi yaay bi dagg seen yaram bu leen fàtte Mame Diarra Diop. mafia dagg seen yaram bi ñoom ñëpp nañ teew esaat ay ñoom maylum maylum mafia bi ñuy dagg seen yaram ñoom ñëpp nañ teew esaat ñu yëngal esaat ba mu yoole avant tout damay sant Elimane di leen sant yéen ñii yéen ñii caméraman yi maa leen di sant bu baax a baax a baax kii nii aw ma fayam Elimane mii barki Seydina Mohamed bëri naa trois combats trois victoires yëpp day ñëw di daj ay coono yu métti booy di di ko bëgg a agressé musuma ko fay cent franc barki ku si mel ni jugoo pas-pas takandeer bokku jom ñoom ñëpp maa leen sant jàppoo ñun ñëpp woo naa leen nag gërëm naa ñëpp su ma limee damay juum woo naa ñëpp sama yaay sama yaay avant tout dama koy wax nag jàppal si course yi nga ñaan sa doom incha allah dina dem jëli ndab bi indi le premier le deux ni jëmm ji moo rigéey ñoom samay booy leen yàgg nañ yàgg nañ sonn si man mais combat combat bi bëgg naa incha allah ñëw féede ma comme ni ma naa incha allah ni waa kafe ga ki su mel waa arab bi ñëpp arab Kaso ma kenn wax ma si combat bi wasalaam